waa Medina ñun waa Medina kon liggéey la guddi acca wax leen waaw dama leen lay wax waaw jëlal ko yeneen candidat boobu yeneen candidat eh mais nañu ni voilà dal leen ak jàmm mbokku internet yi ministère de l'intérieur ak i agent am wala nañ ne duñu dellu ginnaaw benn yoon ci mesure yi ñu jël bëgg ko soxal ci réew mi ngir xeex covid 19 la ministre ba dige woon na jëfe na ko jëm ci wàllu xew-xew bu ñu nemmeeku ca quartier Médina looloo waral ba ñu amal ab déploiement spécial maanaam lim bu takku ci ay takk der yu xarañ lool ci la ñu wàccee la ca quartier Médina la mu jur nag mooy teg ñu teg loxo lu toll ci juróom-ñett fukk ak ndaw foofule ca quartier bu Médina ndaw nag dañ leen jébbal yoon defeere leen ci kanamu procureur ba te teg leen ay daan yu méngoo ak seeni njëf maanaam ñàkk a sàmmonte ak digle yoon ci mbir mii maanaam ci couvre-feu bi waaye itam ngir askan wi mën a sàmmonte ak ndigleeg ministre bi ci ñu sol ay masque kuréelu takku der yi féete fu ne ci ndakaaru njaay jot nañu wàcc ci mbedd ya ngir xool ba xam ndax askan wi sàmmonte nañu ak ndogalu kile di Aly Ngouille Ndiaye di jëwriñu ministère de l'intérieur googule saytu gu ñu amala ci marché yak garage waral na ñu jàll di teg loxo lu tollu ci ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn doomu aadama yoo xamante ne daanaka solo ñu woon seeni masque ba tax nag ñu daal leen di verbaliser maanaam ñu teg leen ay daan ngir di leen artu boobule daan mooy dañ leen a fayloo ci lu tollu ci juróom benn téeméer ci suñu xaalis méngoo ak li yoon tëral ci képp koo xamante ni jot nga jalgati ndogalu ba ministère boobule Tactic TV mu ngi leen di jaajëfal